tam ne kon foofu ñun li nu maxoon ne danoo bëgg autorité indépendante kuréel goo xam ne ay jàmbur lay doon yuy saytu élection bi moom la ñu soxla gis nañu itam ne euh, processus électoral bi ba tey audité wuñ ko maanaam dañu war a càmbar ele bi ni muy doxee ci njëlbéen nga ba ca ba ca ba ca ci pandaw bi loolu ba amagut te mën muy laaj ganute mën na tontu opposition bi batay tey mënagul am accès jot ci fichier électoral bi alors que loi électorale moko ko may moko jox sañ-sañ pour mu mën a dugg ci fichier électoral bi càmbar ko seet li ci nek ak naka la ci nekk lolu itam gis nañu ne euh, ba amaguñ ko code électoral bi dañ ko war a seetaat li ci nekk te waru cee nekk ñu dindi ko delloo ci li nga xam ne mooy tax élection aw yoon ci Sénégal gis nañu itam ne Khalifa Sall Karim Wade ba léegi euh, ñi ngi taxaw ñoom ci tànki euh, génne leen ci euh, maanaam nangu foqati seen sañ-sañ pour mën a bokk ci wote yi li xew ci cour d'appel euh, mercredi bi passé kilomètre ci weer wi euh, cour d'appel Sénégal daal di euh, wane ne moom day dëggaate décision arrêt bi cour bu CEDEAO jël dogal ba ñu ne ñoom duñ ci tënku li leen neex la ñuy def Khalifa Sall day des ci kaso bi nun nu wax ne loolu kat bu dee verdict la

dans la république exécutive, décision tribunal pression la nga pression bi man affaire bu a Sénégal dañu dul euh, parce que bon problème dafa ak yi dafa mais xeyna doko mais trop trop trop trop trop parce que moi tribunal bu fi né, nañu bàyyi Khalifa Sall mu présenté wu mu génn kaso présenté wu euh, Karim Wade génn présenté wu loolu pression la nee na pression la kon fu nu jëm kon moom lu muy lu muy déglu bu fekkee ne loolu pression la kon lan moo dut pression bàyyi ko daal mu def li ko neex loolu nag du mën a am euh, jafe-jafe la euh, wax nañu loolu mais itam xoofu commentaire nee na day xeex ger ak luubal alal réew mi. waaye marche boobu ñu def. manifestation Khalifa Sall ak dong la. Euh, ci seen liggéey bu ba mu toogeeg léegi ñi ko wër ñaata lañu fi tuumaal ci ger ak ak luubal alal réew mi ñaata la kenn xamut nu mu toll ana kum ci jàppagul ana ku mu ci jàppagul kon mën na jàpp ne Sénégal ba màkki toolee toogeeg léegi euh, corruption zéro corruption zéro Abdoulaye Wade sax a tëj ay directeurs généraux yoo xam ne dañ leen a dañ leen a jàpp ñu ne dañoo luubal dañoo def li dañoo leen mu tëj leen bokk ci parteem waaye Macky moom juróom-ñaari at a ngi ñoo gis kenn am na ku ñu jàppoon ci Louga tëj ko waaye dañ ko daal di libéré ba pare nommé ko yokkal ko garaat